ban njeexital la mën a am ci kaaraange bu réew mi Mohamed Ali Mouride Ba waxtaan na ceeg ñu ci seen xam-xam màcc réewu Niger nee na noppi na ngir jaay carburant waa Mali loolu nag ndax port bu Dakar du ci loru ndax ñëpp xam nañu ne carburant bu Mali fii ci Dakar lay jaar impact bi daanaka du ko tax a noonu waaye bu naree yàgg Sénégal ñàkk Mali bu ñu sukkandikoo ci ñu ci seen xamxam màcc Ngan Diouf commune la bu nekk ca Tiwaawoon benn société moo fa tàmbali exploité phosphate askan wa ne du fa amee dugg ca chantier ba bloqué liggéey ba amal fa toogaanub ñaxtu ne fekk fay ñu lay seen xaalis ba mu jeex tàkk liggéey dootu fa am sous bu ñaaxee moom ba mu ca jëlee kàddu leneen la ca wax lu wuteeg loolu la askan wa wax xibaari bi ci réew des na ca ànd ak Georges Déthié Diop tàggat yaram Malal Diagne Junior yéeni kay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis ak RFM la ñuy jeexalee ak laaj bi samp lan la ñu mën a euh, xalaat euh, Sénégal doxalee ko euh, ci wàlluma diplomatie ci nguuruk président Bassirou Diomaye Faye sabab li di ngan gi muy tàmbali ca gànnaar ëllëg ci njeexitalu xibaar lay doon Ablaye Diop moo fare ci machine bi. Barthélémy Ngom leen di nuyu rafetlu seen ànd ak rajo Média président Bassirou Diomaye fay ak ngan gi muy fas yéene tàmbali ca gannaar ni ki ëllëg euh, fas yéene ca dem waxtaan ak euh, njiitu réew mu Mauritanie di euh, Mohamed Ould Ghazouani ca Guet Ndar nag nappkat yafa fa nee nañ daal ñu ngi ci séentu lu bari ñoom ñi yëngu ci wàllum napp nee ñu daal li ñu bëgg eh, daal njëkk eh, ci diggante ñaari réew yi diggante ñaari chef de d'État yi mooy ñu xoolaat accord de pêche yi diggante Sénégal ak eh, Mauritanie ndaxte accord yooyu daanaka dañ jàpp ne dañ ci faral di loru leneen it lu ñu bëgg mooy gaal yu bari yi nga xamante ne ñu ngi leen teg loxo arraisonné taxawal leen taxawloo leen fële diggante Nouakchott Ndiago ak Nouadhibou bi ñu delloo leen ko. Ousseynou Diop. visite bu njëkk bi nga xamante ni président Diomaye Diakhar Faye dina ko amal ca Mauritanie fii ci diwaan Ndar Géej nag yaakaar bu mucc ayib la ci ñi nga xamante ni ñooy nappkat yi am Vieux li mu xamle mooy accord de pêche yi bokk na ci tey jile war nañ ko xoolaat bu baax a baax. moo xam nag licence yu mag yi ñu ngi dox mu licence fi tournée waaye bëgg nañu encore ñu am licence ay gaalu ndaw yoo xam tamit dañuy dem ak di dikk. ñoom nappkat yi jàpp ni jafe-jafe yu bari day am ci diggante Sénégal ak Mauritanie te li koy waral mooy ñàkk déggoo Ami job ak ki nga xamante ni mooy Seydou Niang ñoom gis-gis bi ci am mooy kon ñaari président yi war nañ ci waxtaan ngir jafe-jafe yu ni mel ñu mën ko dëddu. da ngaa ne ba ñëw am dara wala nga am fukki fan ak juróom ñi ñoo lay bëdewal xaalis pour nga mën def sa fay baa nga man fay bore nga bore nga fa nekk te loolu métti na. ñëpp benn lañu mu def ci xéewal gu bu baax jàppale ñu tamit mool surtout mool mool nañu président li lay ñaan waxtaan ak rek mool yi wàllu mool yi nañ ci jiitu ñoom nappkat yi ci seen i gis-gis lu bari ci seen i gaal yi ñu ko téye ci diggante Ndiago Nouakchott ak Nouadhibou ñu ni kon président bu bees bi war na waxtaan ak ki nga xamante ni mooy président bu Mauritanie ngir gaal yooyu ñu mën ko delluwaat seen borom. gaal yi nga xam ni jàpp nañ leen si diggante Nouadhibou ak Nouakchott ak Ndiago mu nekk ay junne junne gaal ñu xaar mu ñaanal ñu ba ñu jël matériel yooyu delloo ko si seen ay borom. visite bu njëkk bi nga xamante ni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina ko amal ca Mauritanie fii ci diwaanu Ndar ñu ci bari dañ ci am yaakaar ñoom moo di sax ñu ngi gis ni bu fekkee ni lañ ñu war a waxtaanee waxtaanee nañ ko nappa gi dina gën a mën a soqalikuwaat Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. Ousseynou Diop euh, jërëjëf visite boobu wala boog ngan googu président Bassirou Diomaye fay di amal ca gànnaar tax na nag ba. mauritanien yi nekk fii ci Sénégal ñu jox leen ci kàddu nee na nag euh, loolu euh, opportunité la ci ñaari réew yi ngir ñu waxtaanaat xoolaat engagement yi jëm ci wàllum explo exploitation euh, pétrole bi gaz bi nga xamante ni ñaari réew yee ko seq Nafisatou Sila ñu ngi fii ci rue 6 fii ci Médina ci buntu ab clinique boo xamante ne bëri na mauritanien yu fi ñëw di faju si lu ëpp ci ñoom nag di jaabante ci buntu clinique bi ñu laaj leen ci visitu président Bassirou Diomaye fay ca Mauritanie ñu koy rafetlu mu doon gane goo xamante ne du def lu dul gën a dëgëral li lëkkale ñaari réew yi. parce que diggante ak Sénégal dafa bëri dafa yaatu dafa am solo yàgg la du tey sax macha allah moom. yokk na taxawaay bi lu ñu kontaan ci loolu. <laughs> wallaay wallaay kontaan na yàlla ñu ay dem ci jëm ñëw ci jëm. ca biir waxtaan bu ñaari njiitu réew yi war a sekk pétrole beeg gaz bi mauritanien yi nag ñooma

voyage boo xamante ne nag ñu bëri njott nañu ne ñaari réew yépp la fay juddu dinañ ci profito zeyna hatta macha allah kontaan shukran bachiru jamaay fay shukran jazilan waaw mu ngoog kàddu yi mauritanien yi dund fii ci sénégal ak yaakaar gi ñu am ci ngan gi nga xamante ni basiru joomaay fay dana ko amal seen réew day euh, gannaar ca mauritanie ni ki ëllëg lay koy euh, tàmbali juróom benn simili moo boot ci benn waxtu ak rfm kumpa jeex na ñu wax ci tiis bi ca quartier àllu baay ñax ga ca yëmbal Euh, benn yarkatu ginaar moom la ñu fekk ci pulaayam jamati ko paaka daal di koy rendi musiba bi nag tax ba askan wa tiit lool ne autorités yi war nañu gën leen a taxaw ci wàllum kaaraange Jibi Diop moo yore seen kàddu lii la dénk Aminata Ba. quartier bi démb si guddi yi xamuñu wax dëgg yàlla yonte bi mu quartier bi mel parce que pape mi nga xamante ne tey ay nit ñoo ko fekk ci biir këram fu mu dëkk di xale bu ndaw. liggéey ba jënd këram def fi playe ay nit dugg fii wax dëgg yàlla def ko jëfin ju ñaaw rey di reyin ju ñaaw moo tax tey quartier bi jigéen ñi ndaw ñi xale yi kenn xamul fu quartier bi tel parce que fu mu nekk nii insécurité bi insécurité bi kenn xamul foo ko natt weesu na fa parce que nit ay nit ñoo dugg ba ci biir kër nit rey ko fa génn dem loolu insécurité mënu ko weesu te fii ngeen gis nii mbedd mii ngeen gis nii cité Ivoire bi yëpp tali bi da leen xaw a sori mbedd mii la ñuy jaar ci fajar gi ñuy dem marché poisson wala ñuy dem di liggéey fii la ñuy jaar amul ay làmp amul dara ñun moom dañu ñoo fàtte ci commune bi amuñu dara dara dara dara démb la ñëpp ñëw mbàbbeeku gis bi affaire bi police comico bi ñëw na dëgg yàlla def liggéeyam ak euh, polis scientifique bi ñëw nañ fii sapeur yi ñëw nañu affaire bi mu ngi ci enquête xëy na incha allahu rabbi fii ak ci kanam dinañ ci am lu ñu leer insécurité bi nga xamante ni ñun ñu fi dëkk gis nañ mooy état bi wax dëgg yàlla nañ ñi bàyyi xel nañ bàyyi xel parce que fii ay jigéen yuy jóg fajar di daana seen doole ñoo fi jaar ma ngoog euh, yuuxu wàllu yu askan wa ca euh, quartier àllu baay ñax euh, nekk ca yëmbal gannaaw la fa xew démb ci guddi muy lu tiis lool doon naa leen ko junj ci boppu xibaar yi réew Niger nee na noppi na ngir jaay carburant waa Mali loolu nag ndax poor bu dakaar du ci loru ndax ñëpp xam nañ ne carburant bu Mali fii ci dakaar lay jaare impact bi du ko tax a demee noonu bu ñu sukkandikoo ci ñu ci seen xam-xam màcc waaye nee ñu bu naree yàgg Sénégal dana ñàkk Mali Umu Kalsum lii réew Mali dina jot ci loxoy réewum Niger ay téeméeri million litre gasoil buñ sukkandikoo ci Ibnu Sougoufara di économiste ci wàllum énergie loolee dana may réew Mali mu alimenté li di centrale électrique yi wante njeexital yi ci réewum Sénégal taxu ko bari lool. ñun nag Sénégal amoon nañ benn contrat boo xam ne ñu ngi ko signé woon ak Mali di jox 20 mégawatts depuis 2017 euh, pour jox leen 20 mégawatts donc bon fii mu nekk nii Mali si soxla na ko dëggantam gaw ma ne dinañ renoncer ci 20 mégawatts yi et même buñ ci renoncer 20 vingt mégawatts bëriwul ba tax na bon impact bu rëy du ko am ci ñun de d'autant plus que ñoom dañ ko soxla même bu ñu jëndee ak nigériens yi aussi du tax quand même ñu renoncer ak ñi ak Sénégal dina def différence tuuti rek mais euh, du du rëy trop actuellement problème politique yi ñooy ñooy arrêté lépp xam nga problème politique ni muy amee nii day tax nit ñi dañuy anticiper ci ci comportement yi donc loolu noonu moo moo nekk ci kaw lépp fi mu ne ba nga xamante avancement wu euh, échange électrique bi ñu war a am dafa xaw a yéex ndax loolu d'autant plus que ñoom ñu ngi dute sax ne dañuy toog CEDEAO buñ sukkandikoo ci Ahmed Ndiaye nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllum koom Sénégal nag dina ci sentir boppam même bu fekkente ni lim koy gaañ bariwul noonu. Mali mooy sunu client mu njëkk maanaam li ñu jaay bitim réew mooy sunu premier client mooy jënd li ci ëpp at mu nekk Mali dina jënd lu toll euh, euh, euh, juróom-ñaar téeméer milliards ak juróom-ñett. juróom-ñaar téeméeri milliards juróom-ñett maanaam sept cent huit milliards chaque année Mali dina ko jënd si donc bu fekkee ni pétrole bi Niger li muy doon jënd si ñun dafay wàññeeku ci jëm ci pétrole man bu ma ko xaymee tey ci valeur bi nga xam ne moo nekk ci le marché mondial maa ngi xayma soixante douze milliards dafa mel ni daal am na dina am jeexital ci ñun waaye du bari noonu parce que koo jaay sept cent huit milliards bu fekkee ni am na wuli wàññeeku ci li ko jaay wàññi quarante cinq milliards wala milliards bon bi barewul noonu daal impact bi garaawul noonu Sénégal lu muy def mooy wuti beneen client bu mu jaay euh, kii yam rek buñ sukkandikoo ci suñu ñaari interlocuteurs yi Sénégal dafa war a profité bu baax a baax ci bile situation ngir rek wër yeneen i client yoo xamante ni dina mën a jëflante ak ñoom ngir rek mu bañ koo gaañ Umu Kalsum lii syndicaliste ya nekk ca kërub liggéeykat bi di poste ñoom nag ñoo jël kàddu def ay précision ndaxte dafa am ay xibaar yu siiwal ne dafa am ay travailleurs yu ñu fa dàqe ñoom nag syndicaliste yi nee nañu ñaari téeméeri liggéeykat yooyu ñuy wax kenn dàqu leen seen contrat moo jeex ñoom ñooñu di syndicaliste yi nag li ñu bëgg ci njiitu réew mi moo di mu gaaw daal di baral tànkam jeexal euh, li nga xamante ni moo di des plan de départ volontaire bi ñu nekkoon di nas loolee nag euh, nee nañu daal dañ bëgg ñu jeexal ko fi léegi at mi di jeex. Ahmed Diouf mooy secrétaire général syndicat national gi ëmb liggéeykat yi poste ñu teewlu ko ci jokkoo beeg Alaaji Njogu Jéen yoo xam ne dañ nekkoon en situation CDD contrat à durée déterminée yoo xam ne bi nga xamee ne at mi jeex na seen contrat dafa jeexoon mais ak situation bi nga xam ne foofu la poste tollu parce que mënul dem di renouveler donc donc donc si euh, contrat yooyu dañ ne woon dañuy bàyyi ba ñu finaliser carrément le euh, le plan de de départ volontaire ak yeneen points yi nga xam ne sous comité bi retenir ni ko pour se repartir pour que ñu mën a jublu ci loolu mais daal li nga xam ne daal moo am mooy amul kenn koo xam ne da nga nekkoon en situation régulière mooy ay CDI wax ne dàq nañ la si plan départ volontaire

sauver sauver poste bi donc euh, plan de départ bobu tamit dafa bokkoon ci point yi nga xamné ñom ñoom nañ ko té plan bobu si woon protocole d'accord entre syndicats yi ak ñi nga xamante ñoom ñooy direction générale mais dañ ko séquencé woon sur sur sur ah sur sur sur trois ans lañ ko jàppoon sur trois ans lañ ko jàppoon dañ ko jàppoon sur trois ans trois at mu nekk dafa am benn parti boo waroon dem waaw chiffré woon nañ ko nag si plus de trente milliards yoo xamante ne chaque année état bi moom moo ko jëloon moom moo ko waroon jël en charge joxe ko pour ñu dem ah yàlla dogal na nag changement de régime am na ñi ngi xaar ñoom ñu finaliser ñu loolu parce que am na ñoo xam ne ba léegi dañu a dem te bokk na ci li nga ne jàpp nañ ne mën na suqali poste bi ñu wax ci leneen dem ca Ngagne Diouf Ngagne Diouf commune la bu nekk ca Tiwaawoon foofu nag benn société moo fa tàmbali exploité phosphate askan wane du fa amee dugg ca sanc ba bloqué liggéey ba ba noppi amal fa toogaanub ñaxtu nee nañu nag euh, fekk fayuñu leen seen koppar yi ñu warloo ak moom ba mu jeex tàkk bu yee boo ne liggéey dootu fa amee sous-préfet bu ñaaxeen Cheikh Anta suñu ndaw la fa jox na ko ci kàddu waaye la mu wax dafa wuteeg la askan wa wax. di ngasama mbégal jàpp dal ngeer ngëti ngaraaf ñoom ñëpp de ñoo ñëw taxaw ci biir chantier bi fii ñuy génne phosphate bi nee nañ de fii la ñu dëkkoon waaye dañ leen fee toxal jële leen seeni kër jël seeni tool waaye ci ay jafe-jafe yu metti la ñu nekk ndaxte li ñu diggante woon ak ñoom de nee nañ defuñu ci dara Salou gay moo yor seen kàddu bi li mu diggee ak askan wi bi mu leen fi jëlee ci télé la leen fi jëlee ànd ak ñoom ci télé gunge leen fële ñu taxaw au niveau de la commune de Ngandiouf ñu réunion su préfet bi jël kaddu daal di ni ku quitté tey ñu accompagner la ak seegu 3 millions depuis 4 mois loolu amul kon ñun ñoo ngi interpellé directement le nouveau président Bassirou Diomaye Faye xam ne béykat li muy dundee moom daal lañ ci yaakaar ginnaaw yàlla mu ñëw teqale ñu ci duma yi ñuy duma société CFAS bi ray na nit ñi ànd kook autorité yi fi nekk imam Mor Fall mi de nee lii ñu leen teg de metti na lool ba tax ñu ci yuuxu wàllu suuf Seck war a wax ñoom maanaam mu doon gagnant gagnant góor gi baam yi nga xamante ne moom mooy chef de village bu Bayax Pël nee na bi ñu leen fi toxalee yóbbu leen ci fu sori Kébémer lañ leen yóbbu waaye foofu ñu leen dalal de du dara lu ñu fa def ndax jël nañ suñu suuf te amuñu fu ñu sàmm amuñu fu ñu bay kan ëpp nu jafe-jafe ba nu demee léegi joxaguñu xaaj ci ci site bi ki démb rek chef de village bi biñ fa ñëwee jaan lañ fu fekk ci guddi jamono yi nag askan wi ñoom ñëpp ñu ngi ci biir chantier bi fii ñuy génne phosphate bi nee nañ duñu bouger benn mètre ba tax na caterpillar Pilari, de yi nga xamanteni ñoo doon ci bi di sous arrondissement bu addu ci RFM Cheikh Diop. Cheikh Diop euh, euh, président conseil d'administration administration moo bind président basirou na euh, corriger injustice bi nga groupe Selim. Euh, dunduna na ko li ko atum 2017 ba négé ndax té bobu ba tey dañoo tej école ba euh, tax nak euh, tëj gogu ñuko ko lépp luy seen établissement scolaire la ñu tej tëj googu ñu leen di nak taxna na ba ki di président conseil d'administration bi né drame social la ba tax njàng xalé yi dal di perturber wu seen xalé yoyu nga xamante ñoo fa joon j'angé ci plim sax toll nañ ci ñetti juneek juroom juroomi téméré ay élèves yo xamante seen ma dafa perturber wu ba ma Madiambal Diagne mooy group groupe Yabou Salim ñu teewlu kook Boubacar Dieng. 2017 ci biir année scolaire bi gouvernement Sénégal dafa jëloon benn décision muy gouvernement bi Macky Sall jiite woon jël décision ni day dakkal activité école Yabou Salim booba nag du di woon tuuma ju ñu teg di woon lu ñu def lu dul yoon dañoo xëy xëy ñu ni gouvernement Turquie nangootul gouver école Yavuz Selim di ndax te ñi nga xam ne ñoo ko sasoon dañoo jubóowul wala dañoo féewaloo ak gouvernement seen gouvernement réew bi loolu amee ñu tëj école bi nañ ko fu ne jooytu nañ ko ci yoon jooytu nañ ko ci Macky Sall jooytu nañ ko ci keneen bi nga xamee ne tële woon nañ ci ñu toog di muñ ba nag ñu nag nguur gi soppeeku na ñu yaakaar ni que Bassirou Diomaye Faye dina am yéene wala laa biir góog bi dinañu delloo suñuy droit suñuy droit mooy école bi ñu tëjoon ñu tijji ko ndaxte ay doomi Sénégal ñoo fa doon jàng ay junniy junniy doomi Sénégal ay doomi Sénégal ñoo fa doon liggéey teraanga yi ci réew mi la desoon ku ne xam ne yow si am na lu bu yokkoon yi qualité njàng mi ci biir réew mi loolu sax moo taxoon ba kii di président Bassirou Diomaye Faye jamono yooyu ay doomam suñu école la ko inscrire oon ci école école yow si yi bari nañu nga tànn bii école indi fa say doom kon nga lan fa séntu yéene am ak yaakaar jàng am kon lool lañ yaakaar ni ko tey na mu yéene woon ay waa këram njàng mu baax yéene woon ko ay doomam yéene woon ko jabootam kon def naa ni la yéene Sénégal yëpp kon nag école bu mel noonu tëj ko jaaduwul woon jooytu nañ ko fu ne waaye nag tey ginnaaw bi yàlla jox na ko léngay ñoo ngi koy ñaan sàkku ci moom mu yeewanal waat école boobu loolu mooy bataaxal bi nga xam ne yoon bi nañ ko ko tey te am ci yaakaar lool ndaxte gis na yaakaar nañ ni que daal dina jubbanti loolu nii teguwul woon ci yoon da jubbanti la nga xamé ni sa monté wul woon ak ak ak yelleefu doomu aadama dina jubbanti la nga xamé aussi du woon njëriñu Sénégal ma Madiambal Diagne président conseil d'administration du groupe euh, Yavuz Selim tay la bëss buñu ñu euh, walum hémophilie hémophilie nak da di feebar boo xamante ni jafa jëm ci walum deret waaye nak euh, seetlu gi moy Sénégal daanaka ñi ko ci xam bari wuñu ba ci sax ñi fajj ñu ci bari ci ñom dañ ko melni lu umpelé ñu japp né ci 1800 junni ak juróom-ñetti téméru hémophile Euh, ñeenti téeméer yi rek la ñu détecté tax association bi euh, gi leen ëmb di sàkku ndimbal ci autorités yi ngir rek euh, médicaments yi nga xamante ni moom la ñuy soxla ngir mën a faju ñu mun leen ñu mun cee jot Awa mbay hémophilie ab feebar la boo xamante ne màndarga bi ci gën a fës mooy nit ki day am jafe-jafe deretam way bu nekkee dafa gaañu di am nàcc-nàcc jàngoro ji dañu koy donnoonte ba noppi góor ñi lay dal fii ci Sénégal ñi amee jàngoro yi hémophilie tool nañ ci ñeenti téeméer association bi leen dajale di gën a ñaax askan wi ngir ñu xàmmee feebar bi ak i màndargaam Abdoulaye Loum moo ko jiitee tey boo xoolee ba ñu ngi waroon am daanaka mille te boo xoolee un plus lañ ci amagoon jafe-jafe bi gën a mag bi ñuy dund mooy am garab yi ni mu waree ndax tey jii yi nga xamante ne moom la ñuy jot saa su dañ leen koy may te ki leen ko jox mooy fédération mondiale bu hémophilie bu ñu sukkandikoo ci kàddu Abdoulaye Loum message bi may jox autorité yi di profité comme ak gouvernement bu bees mooy da leen wax aussi que ne boobu ba léegi ñu ngi ñaxtu pour que garab yi ñu mën ñu ko jëndal mu disponible nit ñi mën ci jot nu mu waree parce que ki lay may bu xëyee mayetu la di nga am jafe-jafe yu yu métti El Abbas Meng di coordonnateur association bi ëmb hémophilie fii ci Sénégal gis ne fii njiit yi ñoom ñoo war a lijjantil seen bopp garab yi nga xamante ne hémophilie ñoo koy soxla ngir ëllëg ñu bañ cee am benn jafe-jafe bu nu ci waree jot tey jii nii boo leen xool euh, hémophilie li nga xamante ne moom la gën a soxla dañ ne hémophilie bu fekkee ni dafay naaj ci dans waxtu yi ci topp war mooy tax mooy mooy arrêté nàcc bi dañu ko doon may par la fédération mondiale de l'hémophilie ñoo ñu ko daan may mais léegi dafa bëri ay bëri ay dëkk yoo xamante ni dañ ci bokk léegi li ñu daan jox mu mel ni téeméer la ñu daan jox te léegi téeméer yooyu mënatul nekk ndax ñi koy soxla dañu bari bëri daanaka mën na ni juróom benn fukk wala juróom ñaar fukk léegi li ñu bëgg daal mooy suñu yi ak gouvernement bi daal bàyyi ñu xel ci fi nga xamante ne mooy seen politique de santé pour ñu mën di jëndal garab yi ndax hémophilie soxla nañ ko trop. hémophilie yi nag fii ci Sénégal di profito tey ci bëccëg bi nga xamante ne moom la leen àdduna bi jagleel ñu waxtaan ci seen feebar ngir nit ñi mën a xam li ñuy dund ak seen i jàmbat. Awa Mbaye jërëjëf laboratoire yi nga xamante ne ñoo ne ci Afrique yëngu ci wàllum paj défi yi leen di xaar bari na lool ñi ci ëpp ci ñoom amuñu euh, infrastructure yu doy. ngir bu pandémie amee lu mel ni Covid bi fi jaar kero euh, ci at yi weesu ñu mën ko dékku looloo tax euh, ay experts yu jóge ci euh, fukk ak juróom-benni réew ñoo dajaloo woon ca sali doon ca waxtaan ñu teewlu ci docteur Abdourahmane Sow mooy directeur santé publique ca institut Pasteur ab Ndakaaru kàddu yi mu dénk Ndey Maty Dieng dañu fi dajale fukki réew ak juroom benn yu nekk euh, Afrique de l'Ouest moy ñu jéem a xool naka la renforcer suñu ay capacité ba mëna préparer wu encore pour liñu ñu daloon si yenn épidémie yi ba ñu dalaat ba ñu gën a a préparer wu dañu am benn projet bu aussi bo xamni mom lañuy lancer actuellement am nañu fi tous les directeurs des laboratoires des pays de CEDEAO les directeurs de la surveillance aussi ak aussi ñi nga xamni ñom ñoy liggéeyal mondial ci dëkk yoyu liñu si moy ñu xol yi nga xamni mom mo nek gap yi nga xamni mom manké naka lañ koy renforcer et que donc si ñetti at yi ñuy jëm dañu am ben projet bo xamni fonds mondial moko mettre à la disposition des pays de la CEDEAO de 5 millions de dollars pour ensemble essayer de voir naka lañ mëna renforcer les capacités en plus nak de tous les efforts yi nga xamante ni yi yenn partenaires yi donc koy def et partenaires yi fi jitu moy OAS yi nga xamante mom moy fi nekkal pays yi nga xamni ñoo nek Afrique de l'Ouest mais aussi l'Institut Pasteur ak ben laboratoire ku mag no bu nekk beneen dañ gis ne quand même malgré effort yi nga xam yëpp suñu gouvernants yi ak aussi tous les partenaires yi Africa CDC OMS ak yeneen partenaires yëpp ñoo ngi koy def am na encore ay gap am nañu encore ay insuffisance si si xarañte yi disons bu des loolu war nañu yokk formation bi war nañu yokk jumtukaay yi war nañu yokk aussi ay moyen yoo xam ne mën a tax ba nit ñi mën a lënkalonkoo lënkaloo ba nga xam te ni rapidement da daañu am données yi si ni mu gën a gaawee Lindiane Jardin benn ci ñeent fukk ak juróom-benn quartier ya ca commune bu Kaolack ñaari at a ngi nii amuñu délégué de quartier loolu nag métti lool askan wa fa ne daal ba ñu bëggee def yenn yi ñoo xam ci ay wàllu démarche administrative dañuy faral di ami problème loolaa tax ñuy sàkku ndibel ci euh, autorité ya ca commune bu Kaolack Fatou Mbow askan ngay yeewoo ca quartier Lindiane Jardin nag di am njàqare loolu waaye it di naqarlu lu ñuy xaarandi di ba tey nag ñu amal li di délégué de quartier ñaari at a ngi nii nag ñu bëgg mbir yu ni mel tax ba ñuy sàkku ci maire bii di sëriñ Mboup ndax moom moo yore dogal bu ni mel buñ sukkandikoo ci kàddu yi. Oustaz du Sow mu ngi bëgg am ñaari at nag amul kenn koo xam ne kii tey mun nañ ne kii mooy délégué de quartier bi kon daal dañuy ñaan monsieur le maire ah, mbir mi sa prérogative la. mbir yu mel sax daal dinay gàllankoor ci doxalin yu ñuy amal ñeel wàllum administration bi ci boobu le quartier. ba tax na loolu def ñoo xaw a gàllankoor ci lu bëri. 45 délégués de quartier euh, quartier yëpp installé nañ seen euh, conseil consultatif du quartier ba mu des ñun. bari na yoo xam tey su génnee ñu ne waa Lindiane ko moom duñ am ku ñu représenté koo xam ne kii moom mooy wax ci turu Lindiane wala muy def ci turu Lindiane. loolu nag lu ñu miti la. addu ci yooyu le sàkkuteef donte na sax am na ay prétendants sur place nekk na ab doléance su yile askan di attirer attention. meeru dëkk bi. def nañ ay démarches dem nañ mairie même ñi nga xam ne sax dañu ne ay candidat lañ dem nañ mairie waxtaan ba juboo waaye dafa mel ni ba léegi rek affaire bi daal ci côté mairie bi la dese te xamuñu.

fat yu bari jaarale ko ci ab communiqué lañ ko xamle état major général bu l'armée bu Mali mo def lu ni mel ñu nek opération yi fan yi ñu wess lo won soo da bu ñu sukkandikoo ci état major général bu armée malienne bi Burkina Faso Mali ak Niger dañoo lëkkaloo ba daal di naxasal ay groupe terroriste yu bëri naka noonu itam yàq seeni ay base logistique yu nekk ci zone frontale bi fukki fan ci weeru avril gi ñu génn lëkkaloo boobu moom moo tax ba ab congu nigérienne daal di yàq seeni ay matériel yu am solo waaye itam nasaxal ay terroriste yu bëri yi newoon ca zone bu ñu naan Amalawlaw nekk ci secteur bu Labezanga ay ginnaaw fukki fan ak ñett ci weeru avril ba tey am na ay matériel de guerre yu bëri yoo xamante ni ñoom yàq nañ ko yokk ci la ñu nasaxaloon ay groupe terroriste ci benn village bu ñu naan Xurara nekk ca nord ouest bu labe Labezanga di frontière diggante Mali ak Niger bés boobu sax ci secteur bu Douna di frontière diggante Mali ak Burkina Faso Mali ak Burkina amaloon nan ab congo ba tax ñu daal di teg loxo base logistique yu terroriste yafa waaye itam bu ñu sukkandikoo ci benn major général armée bi loolu nag lu ñu rafetlu na ndaxte day gën a yokk doole lëkkaloo boobee diggante Burkina Mali ak Niger ngir terroriste yooyu le may leen jàmm ca euh, Éthiopie conférence euh, ba ca Genève euh, jox jot na 630 millions ci dollars ngir am jappalé lañu dundé dundee chiffre boobee nag soriantoon naag lool la nga xamanténé mom lañu xaar di trois millions de trois milliards de dollars mbotay waxé yi moy wut li ni mel ngir financer ab plan de réponse humanitaire tout 2024 gi conférence bobu ñëk ko organisé ñoo di wa Nations Unies ànd ceeg gouvernement yu Éthiopie ak Royaume-Uni ñu bëgg daal moo di euh, jot ay engagement ngir jàppale lu toll ci fukki million doomi aadama ak euh, juróom yi toftal euh, at gi ni ca ca Éthiopie. ñu wax ci wàllum wér-gu-yaram États-Unis noppi na ngir amal ay partenariat ak euh, juroom fukki réew. ci euh, ab euh, démb lañ ko xamle démb talata kilifa yi l'Amérique ne lolé li ko tax a jóg moo système de santé yooyu dëkk ci li nga xamantene ñu ngi xol naka lañuy def ngir prévenir lepp lu jëm ci walum pandémie. Anna États-Unis lu mu bëgg moy jàppale réew yi nga xamné ay partenaires lañu ci mom li ci ëpp nek ci Afrique mba Asie bu ñu ci président américain bi di Joe Biden stratégie mondiale de sécurité sanitaire bi ñu bëgg teudal tëddal war na ngir ñu fagaru itam xeex bu baax menace biologique yi ngir ñu mëna moytu am crise sanitaire mondiale melni ni bi ñu atom atum 2020 ak mbasu Covid 19 bi stratégie stratégie bi kon li ko njëkk tax a jóg mooy aar askan wi ci àdduna wërngal këpp waaye itam fexe ba États-Unis gën a dëgëral taxawaayam ci wàllu santé bu ñu sukkandikoo ci bataaxal bi nga xam ne euh, président Biden bind na ko ñu siwal ko démb talaata te taskatu xibaar yu bëri yi nekk bitim réew daal di ko siwal États-Unis nag dañoo fas yéene tàmbali euh, doxal stratégie boobule même bu fekkente ne amaguñu euh, déggoo ci misaal sax Congo bokk na ci réew yi nga xam ne stratégie américaine bi tàmbale na fa dox ndax gouvernement américain bi mu ngi jàppale réewu Congo mu daal di xeex épidémie virus bi di pox bi nga xam ne gis nañ ko ci fan yi weesu mu koy jàppale nag ci ay dose de vaccin ndax bu ñu ci organisation mondiale de la santé di OMS lu ñuy dund jamono yi ci Congo urgence mondiale la ndax lu ëpp 91 000 cas lu ñu d'aldi gis ci lo tollook téeméeri réew. États-Unis nak mu ngi annoncé stratégie bi ci jamono yi nga xamné mu ngi euh, am jafé jafé ngir mu ngi am jafé jafé ngir am dégo, ci lu soxol fagaru ci bép mbas. guerre wàcc Gaza lay ram. Moyen-Orient madame, escalade dans dana bokk ci la nga xamante dañ koy waxtaanee ci sommet européen bi am tay gi ni ci Bruxelles euh, ay sanctions yu yes yu euh, Union européenne bo moyul danañ ko euh, danañ ci jël dogal jëmale ko ci Iran ni ka États-Unis bëggee Iran mom nak jamono ji di célébrer liñu ñu la journée de l'armée lolé tax sax ñu rafetlu ndam la nga xamante am nañ ko ci cong gi ñu jëmale won ci Israël né itam bu Israël tonto danañ ko def lu gën a doy waar ca Ukraine gën kaa tuuti fukki nit ak ñeent ñoo ñàkk seen i bakkan ci ñetti cong yi nga xamante ne euh, Russie jëmale na ko tey ci euh, diwaan gii di euh, Tchernihiv lu ëpp juróom fukki juróom benn fukki nit jële ci ay gaañu gaañu ministre de l'intérieur ne sax bilan boobee boo moyut dana yokk ndax gën kaa tuuti ñetti nit ba jamono ji kenn tegu leen bët ñu ngi wéyal li nga xamante ne moo di recherche yi te dañu njort ne bâtiment yi nga xamante ne moom la attaque boobee visé am na ñi nga xamante ne nag ba léegi ñoo nga ca biir. jaajëf Georges Déthié Diop. RFM Sport. Esport beeg Malal Junior Malal ñu ngi lay nuyu. Barthélemy. ayca euh, ñu tàmbale ko quart de finale retour Ligue des champions ki yore raaya gi tey mooy dalal Real Madrid. Manchester City ak Real. kii mooy raaya gi ka des mooy ëpp la mu gagné boobule euh, jongante di ligue de champions africaine ca ba ñu jongante ci ay bés benn weesu dañoo témboo woon ku ne amoon ñett sa kangu morom ba tax ñi ko xool wàllu coupé gisee ni jongante googu tey ji dina mel ne sonkorong ca Banjul du doon lu yomb keneen jongante gu doon gu dul yomb itam mooy dox diggante Bayern de Munich ak waa Arsenal ñoom itam dañoo témboo woon ku ne amoon nga ñaar ci sa kangi moroom démb xam nañu ñaari équipe yi war a njëkk dem ci demi-finale yile compétition de Ligue des Champions muy Borussia Dortmund mi duma Atlético Madrid ak Paris Saint-Germain mi génnee équipe de Barcelone ci jongante bi. ñu wax ci Coupe du Sénégal euh, Notre 32e finale euh, niki tey ji ci ngoon ñeel ñu mag ñi. Ligue 1 Ligue 2 National 1 National 2 ñom ñoo wara ci coupe du Sénégal président de la république du Sénégal nuni ci stade Amadou Barry douane jongante ak wa assure douane ñom deuxième division US parcelle di dajante ak ki ci Ligue Sénégal di FC ci Ndar Étoile Polaire jongante ak Agel ci Maniang Soumaré ca Thiès COT di équipe bu Thiès moo fa dajante ak waa Don Bosco ñu wax ci wàllum euh, basketball Thiès ca Diop Marius Ndiaye ni ki tey ji ci ngoon soxna yi ñoo fay tàmbali seen fukkeelu journée mu ni programme nga bu tàkkusaan xaajalee ba tegal fanweer ci ay simili débalak moo dee jongante ak waa Jamaagën ca góor ña ñoo ngi ci fukkeel bi ak ñeenteel bi journée dañu ko euh, ñoddi ngir bés bi gën a yegg si mu ni tey nag duwaan moo jonganteeg Sibac Douane nag championnat bu mu dooree ba léegi kenn mënu ko daan te benn jële dong la am mooy ci coupe Saint-Michel bii nu weesu loolu tax ba gars yi jàpp ni kon dana nu wax seeni i mbagg ngir gën a mën a taxaw ngir waajalaale loolee di basketball Africa League Sodecam. mu nekk ci bopp classement wu poule A bi ak fukki ndam yi mu am ci fukki jongante yi mu jot a loolu tax ba mu am ñaar fukki poñ moom AS Douanes nag bëgg na di woy ci yoonu ndam gi nga xamante ni moom la nekk ci championnat bi bu ñu sukkandikoo nag ca kay tàggat AS Douanes googule defet gi ñu amoon ci njeextalu ay bés bile am na lu bëri loo xamante ni bàyyi nañ ci xel ba tax na daañu amal jongante bi seen digganteeg Sibaak ci anam wu mu gën a rafetee Mamadou Gueye Paa bi. contre AS de Dakar nga xam ne remettre nañ en notre place parce que soo xoolee ne depuis début de saison nous léegi gagné certes nous ñu gagné sans véritablement euh, convaincre personne yaakaar naa ne lii nii euh, piqûre de rappel euh, genre perfusion la su fekkee ne mën naa exprimer wu noonu ba nga xam ne match yi nga xam ne des na beaucoup de concentration de détermination et beaucoup plus de sérieux. si ces minute minutes, ba si dernière minute pour espérer euh, gagner gagner gagner say match. mu nek ci juróom-benn place classement bi ak fukki poñ ak ñaar Sibak nak mom fas yéene naa dem ci match bi ba jeex buñu ñu sukkandikoo ca kaleen di tàggat moom Ibrahima Mbengue xamal nañu ne nam duwaan na na ci benen compétition waye du té mu doon équipe bi mu doon ba léegi ba tax na ñoom waa Sicap daañu xaarandi match bu metti waaw dañuy jouer ak AS Douane tey mu nekk match bu nga xamante ne nii match bu décisif lay nekk waaw ñun nag xam nañ ni match bu metti moo ñuy xaar moo tax préparé wu nañ si plan yëpp waaw pour mun a jongante. AS Douane nag mi nga xamante ni qualifié na ba noppi ci playoff yi dina jàkkaarloo ak équipe Sicap boo xamante ni moom day wut place ci playoff yi ñu fàttali sax ni ci phase aller bi AS Douane moo daanoon Sibac 60 ci 55. Euh, Barthélemy. Mhm. maa nga ñibbi. jërëjëf Malal. ñu fanaan jàmm. waaw bon appétit ci añ bi. jërëjëf Diagne. pour rajo bi gën a jege askan bi jaamu seen soxla. drogue yeeg phobie yi ñuy jàpp Sénégal ci fan yi yëpp ban njeexital la mën a am ci kaaraange réew mi Mohamed Ali Mouba waxtaan na ceeg ay ñu ci seen xam-xam màcc. bu sukkandikoo ci colonel de gendarmerie à la retraite bi di Sankum Fati Sénégal daanaka menaces yi bëri na bu jógul euh, kon insécurité dina am ci réew mi ndaxte drogue ak faux monnayage foo ko gis daanaka cocktail explosif la. parce que nit mun na euh, ay groupe mun nañu jël seen gànnaay attaqué seen également yoo xam ne fépp tamit mun na am te loolu xamoon nañu. Euh, mais également mun nañu wax ne suñu suñu société ci boppam suñu askan dafa une euh, euh, Sénégal euh, pays exposé principalement ci terrorisme colonel Mamadou colonel de l'armée à la retraite Sénégal une base stratégique la ngir permettre ñu activités yi Dakar du zone bi ñuy attaquer ñun ni la géopolitique régionale euh, suñu région mooy terroristes yi du ñu laal dëkk yi nga xam ne dafa am port parce que comme ñun ni ñu soxlaa port noonu la ñu soxla port donc euh, mën nañu wax base logistique donc ñoom port yooyu ay base logistique la donc duñu ñu fa wone seeni seeni seeni seeni yàqu-yàqu ba ñu mën leen yàqal base logistique boobu loolu moo tax souvent du ñu attaqué euh, Dakar du ñu attaqué Abidjan du ñu attaqué Lom parce que yooyu foofu la seen seen trafic bi di jaar foofu la seen ravitaillement di jaar. Dakar zone de transit base stratégique ngir ñu mën a def ay

DSL Axel seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant ñoo ni may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yi ñu Mamadou Ndiaye. jërë ngeen jëf ay coppite yu mag te réunion ngi waajaam ci police réew mi l'observateur moo ko bind ci xëtamu njëkk ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne bu changement de dernière minute amul ministre intérieur bu bees bi di Jean-Baptiste dana wàccee Seydou Bokar Yade mi doon jamono ji directeur général police nationale l'observateur mi ñu ko wax teg na ci dañu wax ne am na ay xibaar yuy wax ne bari ñu mu consulter waaye Mame Seydou Ndour mi doon jamono ji directeur national ak jaloore ji ñuy defati jëral xët mu njëkk vox populi ñaari fan ginnaaw bi duwaañu Tamba jàppee drogue bu bari te Kidira bu Kolda jàpp na ci gudomp ay faux yu toll ci juróomi milliards euh, duwaañ yi ca poste bu Tanaaf ñoo ko jàpp jàppale ñeenti nit ñoo xam ne ñaar ña étranger lañu dëkkuñu ci réew mi yéenekaay bi nañu ci benn auberge bu nekk ci dëkk ba fa la leen fekk jàpp leen euh, xibaar boobet mu di juróomi milliards yi faux yu duwaan jàpp ñu xibaar ne président de la république Bassirou Diomaye Faye dafay dem Mauritanie tey jii ci di ñu jàngatal ak leeralal demuk Diomaye gi ci gànnaar lan moo ci laxasu ci wàllu diplomatie mi ngi ñuy waxit ne président yu bari bu ñu faloo ci déndub Afrique bi seen tukki bu njëkk réewum France dañ koy jagleel waaye président Diomaye moom deful lool moom ci dëkkandoo yi la njëkke muy réew Mauritanie lii ko tijee xëy jox kaddu gi ay économiste ngir waxtaan ak ñoom ci enjeu yi gis ci wisitu président Diomaye bi mu war def tey jii ci àllarba ji ci Nouakchott ñaari économiste yi ñooy Magaye Gaye di Alla Kane moom la sonal bés bi la jur xëy ci cabinet bu Ousmane Sonko la bokk doon it ku ñu ràññee lool ci gos bi li mu njëkk ca waxtaan mooy système bi fi nekkoon dañu gas ba mu xóot ñu suul ko ca mu dolli ci ne nay leer mbiri 94 milliards yi ñu fi doon jaaba jonge ak coolu Prodac li lëmbe woon réew yoo xam ne il faut que dañu koy leeral ba ñëpp xam li ci xew dëgg-dëgg militaire yi àllakan nee na nañu dégagé Amadou Ba mi jël ci élection présidentielle yi àlla ne bu dee dafa am yéene doon chef de l'opposition des na ci moom te su ko doonee avantage jot moom Amadou Ba moomee sax moom la journal Tribune xëye kan moo ci war morom bi leneen li muy laaj mooy lan moo tax kii di Amadou Ba doonoon koo xam ne ñëpp dañu ne woon munu fee ñàkk mujj gi mu soppali doon am kenn bëggul ci waa këram yi gouvernement bu Ousmane Sonko bi journal Sud Quotidien tuddee Sonko 1 ah, mi ngi ñuy xamal ne tey ji moom Ousmane Sonko premier ministre bu Sénégal moo ki ministre tey la subu ci waar yi ci ndajem conseil des ministres bu ñu war def ngir waxtaane fa li ñu war def Walf da ngay dem assemblée nationale defi fa déclaration politique générale premier ministre bu bees bi di nationale ngir defi déclaration politique générale Wolf Quotidien gis na ci ay risque yu mag ci mom Ousmane Sonko bokku ci risques yi ab motion de censure bu mu fa mën a Wolf Quotidien mi ngi ñuy fatali ne ñom ñi ci bop réew mi amuñu majorité ci assemblée nationale point actu nañu mo taxit li ñu bëgg mu di jëlee ci réew mi au conseil collectivité territoriale jëlee fi conseil économique social et environnemental du yomb ci ñom ndax ngir jëlee fi ñaari couleur yoyé une fois que dañuy jaar ci assemblée nationale te it faaw dañuy am 3/5e ci député yu ci and ak ñom te wa Pastef seen doole ci pinchum ndaw yu réew ma wul tok muy dox journal Tribune nañu xaw

jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen itam jërë ngeen jëf ñu yegg si ci ponk bu mujj bi ci xibaar yi di gis-gis euh, ak laaj bi samp nan lañu ñu mën a euh, xalaat Sénégal doxale ko ci wàllum diplomatie ci nguuruk président Bassirou Diomaye Faye euh, sabab li nag di nganam gi muy tàmbali ni ki ëllëg fële ca gànnaar ngir waxtaanee lu ci jëm ñu ngi ci ligne bi ak kii di Mamadou Fall monsieur Fall ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay. jërëjëf Fall yow diplomate de carrière nga. Euh, bu à la traité nekkoon nga fi ambassadeur nekkoon it euh, secrétaire général ministère des affaires euh, étrangères suñu beneen intervenant bi docteur Lamine Sarr monsieur docteur nu ngi lay nuyu. Ah, jërëjëf Sarr yow enseignant chercheur nga l'Université université numérique Cheikh Hamidou Kane di spécialiste ci wàllum relation internationale alors monsieur Sarr nga baal ma ma tàmbali laaj bu njëkk bi jagleel ko Mamadou Fall diplomate de carrière monsieur Fall gis nañu ne président Bassirou Diomaye Faye nganam gu njëkk Euh, ci sunu dëkkandoo yi la ko jagleel euh, fii ci moritani muy réew moo xamante ni daanaka lu ñu bokk bari na tànn gi mu cànn Mauritanie ngir njëkk faa dem euh, lu yenu maana la ci sa gis-gis. waaw loolu loolu moom dañu wolof njaay lu mu la wax bu la léeboo rek moo gën a wóor. Hmm. dañ dëkkandoo jàmm ca gën. Hmm. donc loolu mën a prôné jàmm jàmm jàmm da koy commencé sa dëkkandoo. Hmm. moo Sénégal bu président bi bu waxee Mauritanie après mu Gambi. lu euh, ne euh, Mauritanie Sénégal ci gaz pétrole bi euh, visite bi c'est un pas vraiment décisif important. non c'est important c'est important parce que le président nee na dafa réviser par exemple accords mm-hmm par exemple tout ce qui est des accords pétroliers bu dee loolu da cee bokk kooku day baax mu waxtaan ak Mauritanie parce que am na gisement boo xam ne ñoo ko bokk. Mhm. voilà donc loolu c'est important mais deuxièmement bu leen ko fàtte quand même euh, Sénégal amoon ay temps yu bari yoo xam ne xale yi dañuy dem géej gi di am ay incidents yoo xam ne euh, doon na am ak Mauritanie. Mhm. ñu ñu ngi dégg sax nappkat yu Guet Ndar yi di ko wax. voilà donc la baax itam loolu ñu waxtaan ci.

voilà euh, mangi ngi dellu yow legui euh, excellence euh, docteur Lamine sar ci walum géopolitique ak réew yi ñu est-ce que njëkk dem Mauritanie lu bax la ni niko monsieur Fall waxee waaw docteur Lamine sar ligne bi dafa couper xamna buñ mako ñu wowal ko muy monsieur Fall ma ma ma ma tàmba ma wéyal ak yow gis nañu ne aussi walum diplomatie bu Sénégal Sénégal réew yu bëri dañ ko naw euh, ci walum euh, diplomatie bu muy doxal mo xam ci sous-région bi la ba ci sax au plan international euh, léegi yow ci sa gis-gis lan mo ci wara a doon tànki président bu bees bii ñu fal ak gouvernement am. waaw mais diplomatie bi baax baxna mais man na gën bax baax. mën na gën bax mhm. parce que bo xolé aussi président Diomaye xam nga bi mu ñëwee dafa andi ben style. Mhm. dañoo ñëw def dem élection gagné ko bu mucc ay mu am benn espèce de légitimité internationale. Mhm. Euh, xale yi nekk ci Afrique yépp naw ko. Mhm. bëgg ko bëgg ko roy kon nag léegi ñun dañuy dugg ci beneen phase bu gën a avancé. Mhm. maanaam ni président Dramé noonu ni ni ni ko xale yi bëggee naw ko. dëkk yu bëree bari di di wax ay waxam. Mhm. loolu aussi dafay c'est une day war a une nouvelle diplomatie. Mhm. boo xam ne bi leadership bi muy jox Sénégal Sénégal bu ko amee itam mel na ni amoon am jamono yoo xam ne xawoon na cee perte tuuti. oui parce que CEDEAO bu ñu demee ba condamné quand même Sénégal ci affaire parrainage bi yooyu. Mhm. Sénégal bañ ko appliquer et cetera bon en matière de gouvernance, c'était quand même un problème. Donc, euh, Amna Boukoy pour redorer un peu le blason du Sénégal. Il faut qu'on redore notre blason. Il faut dire les choses. Il faut nous redorer ce blason. Amna nous améliorer. Hum. C'est l'heure de Diomaye. C'est une Place Boubarla. D'accord. D'accord. Mangi donner le Monsieur Fall. Euh, docteur? waaw bi dafa coupé woon sànq nga baal ñu. Euh, maa ngi doon wax léegi ci wàllub géopolitique boo xoolee ak réew yi ñu dendal Mauritanie mooy li mhm. waaw parce que xam nga lu mhm. euh, Sénégal si liñ ko xamee mooy day njëkk consolider ay relation am ak dëkk yi ñu wër Mauritanie di Gambie di Mali ak Guinée mhm. loolu suñu environnement proche wala voisinage proche. moom a suñu suñu premier palier donc buñ ñu demee ba li ñuy suñu politique étrangère wala suñu relation internationale dañ ko war a d' abord consolider ak dëkk yooyu. Mhm. léegi nag dëkk yooyu tamit président bi choisir ko par hasard. parce que comme symboliquement dëkk yooyu la mais tamit am nañ ay intérêt par rapport ak dëkk yooyu. Gambie ay relation bu particulière la par rapport ak ñoom. bu paree crise Casamance bi aussi bokk na ci li tax boobu ñu war a consolider suñu diggante ak Gambie. ak Gambie bi nekk Gambie bi nekk ci biir Sénégal. biir Sénégal donc loolu moom lu lu war la loolu loolu lu war la te aussi am nañ yeneen enjeu bois bi transport bi relation commerciale yi yëpp war na tax ba suñu relation ak Gambie bi ñu war koo dooleel. Mhm. et même la sécurisation des frontières. ci contexte ci contexte bi ñu nekk nii. waaw waaw loo aar aar suñuy aar suñuy frontières euh, force de sécurité et de défense yi am nañ liggéey bu mag ci suñu frontière ak Gambie. donc mhm. loolu tamit dañ ko war a dañ ko war a suuxat euh, beneen beneen dëkk bi mooy Mauritanie may fàttali rek ne. Euh, Sénégal mu ngi ci waaj dugg wala mu ngi dugg na ci exploitation gaz ak pétrole te am na ci gaz ak pétrole boobu boo xam partie boo xam ne dañ ko bokk ak Mauritanie. Mhm. donc il faut si waxtaan ci ak ba juboo ak ñoom tamit ak yeneen relation ak yeneen enjeux yu si mel ni napp bi géej gi yooyu yëpp dafa bokk donc au delà du symbole au delà du message bi ngay envoyé. Mhm. suñu suñu suñu waxtaan ak dëkk yooyu dafa war. waaw léegi nag waxtaan boobu tamit dina ko étendre dina ko dina ko dina ko gën a consolider dina ko gën a defar. Mhm. ak yeneen dëkk yu mel ni ay Mali ak Guinée Guinée Conakry Guinée Bissau. Mhm. ak même dëkk yi nga xam ne ñoo ngi ci biir CEDEAO gën naa ne taxawaay bi président Diomaye wane ak administration bi ñu toll nii. Mhm. xam naa ne euh, intégration sous régionale ak intégration régionale euh, lu lu leen soxal la donc. muñu lu dul rafetlo rafetlo pour l'instant dal hmm. le fait que première visite bi nekk un environnement proche. mais mais mais bo xolé côté diplomatie c'est vrai que monsieur Fall mon koy wax euh, Sénégal dafa redorer son blason euh, au niveau africain d'abord puis au niveau international parce que gis nañu euh, dogal yi nga xamante CDAO Cour de justice CDAO da ko doon jël ci ay décisions yo xamante mo moo décision Sénégal ñu bëri japp ne peut-être un peu image Sénégal c'était un peu écorné par rapport à yenn yi aujourd'hui ñu yexi

président nous nous si justement si ci ci environnement bobu mhm. pour gëna a Sénégal si non seulement Afrique de l'Ouest mais également en Afrique et plus généralement si aduna bi. si mhm. occasion bi le mëna profiter pour consolider relations, relations a dëgëral diggante bi par rapport ak dëkk africains yi. Mhm. mais également pour diversifier ay partenariat am ak yeneen dëkk yoo xam te ne ne bokkul ak ay France wala États-Unis mhm. donc yeneen dëkk yi nga xam te ne ñoo ngi si àdduna bi te am kattan am doole am ay intérêt Afrique am intérêt Sénégal Sénégal dafa war a taxaw pour waxtaan ak ñoom tamit pour moom tamit sauvegarder ay intérêt donc loolu tamit lu war la Donc, mhm. tamit lu war la maa ngi dellu si ci yow léegi docteur euh, alors euh, Mamadou Mamadou Fall euh, c'est vrai que au plan africain c'est bien beau ñu defar suñu suñu suñu der redorer notre blason nous nous ko mën a ci ci français mais au plan international surtout parce que Sénégal aussi dafa bëri ay convention yoo xamante ne na ko réew yi au niveau international bu demee ba deram di xaw tilim ci Afrique est-ce que loolu mënul andi euh, touti problème ci yenn euh, relation yi coopération yi wara am. Ah, loolu moy moy li fi xawoon a commencé am touti légui hmm. euh, comme comme niñ ko waxé bon légui d'abord dañuy commencé Afrique. Hmm. mais aussi bu ñu paree nañu xamné aussi adina bi dafa am dafa am phase bu nek une phase critique. où il faut passer d'un système de stabilité hégémonique moy adina bo xamné bi ben dëkk moo jitu moy États-Unis mhm. ba àddina boo xam bi am ñuy wax naan multipolaire lay nek ak yenen ak yenen mais ce qui est sûr dans ce jeu là les rapports entre les pays développés et les pays sous-développés d'une manière générale mhm. day commencer changer parce que maintenant les gens ont commencé commencer di souveraineté dañ ko war a am. Mhm. parce am na yoo xam ne yii nit du la ko defal yaa koy defal sa bopp. xaalisu jàmbur kenn du ci développé. Mhm. langue jàmbur kenn du ci développé loolu nag doo ko tëb tëb teg ko waaye nag danga nga koy def sa xel di jéem a dox jëm ci loolu. Mhm. léegi euh, dafa am problème nag aussi bu am importance ndax président président itam dem na Mauritanie dana dem Gambie. du dëgg man Gambie def naa fa juróom-ñaari at. yaakaar naa ci peut-être ñi ma ah que directeur Afrique. Mhm. donc c'est un département c'est un pays que je connais très bien. mais li wóor euh, dafa am mhm. bu doxut bu doxut dëkk problèmes. pour xaj na dañuy soxla pour AES e les états yooyu génn ñu ñëwaat. waaye ñëwaat bi itam du tàggani loo xam si dañ leen di jox impression que Sénégal mooy gendarme Afrique de l'Ouest moom moo leen di indiwaat ak noonu. Mm-hmm. man li ma yaakaar mooy dañoo war a dem ak xel ñu xam ne CEDEAO bu ñu ko defaree ba mu baax. Mm-hmm. ñii xëy na li tax ñu demoon ñu mën cee laal dara dana pour indi leen dana gën a yomb. ci bu ñu ñëwee rek ne leen ñun ñooy Sénégal ñun ñoo nekk premier en Afrique de l'Ouest ñëw leen déedéet nañu defaraat CEDEAO ba pare maanaam euh, affaire crise yi fa am. Mhm. crise yi fa am te li ko andi woon mooy mauvaise gouvernance mhm. mooy mooy mooy mauvaise gouvernance loolu la ñu war a xoolaat seet ba xam bu amatee ay conflit ay coup d'état militaire ou coup d'état constitutionnel ñu am ay nit ñoo xam ne dañuy ñëw ñu tranché ko de manière bu gën a baax. loolu ñi demoon léegi Sénégal na proposition mhm. pour CEDEAO ñu defar ko ba mu pour bu ñuy Mali ak Burkina ak euh, ak Niger. day yomb bi day yomb. Mhm. la leen naqari xëy na am luñ ci dindi. que aussi sécurité de mënut parce que terrorisme bu ko deful terrorisme de day day jël dëkk yooyu yëpp. Sénégal daal moo war a mën a jiite locomotive Sénégal moo a régler loolu parce que moom am ñun impliqué ñu directement. Mhm. on n'a pas de problème particulier avec les pays occidentaux par rapport à ces problèmes là bon il faut que maintenant Sénégal use de son influence et de la nouvelle dynamique donnée par l'image de marque du nouveau régime qui qui qui il faut le dire est en train de de de de faire de bonnes choses à l'intérieur, et fi ñu toll yaakar nañ ko. Sénégal am ñu demal ils ne xàmmeetuñ ko. d'accord jërëjëf euh, excellence Mamadou Fall ñu ngi lay gërëm docteur ma jeexal euh, très rapidement ak yow euh, C'est vrai que visitu président Bassirou Diomaye à Mauritanie déjà sax ñu ngi koy nappkat yi ñu ngi koy wax yaakar mën na ci am mais après tout la Mauritanie reste un état souverain. Euh, Gambie également même su fekkee ne mu Sénégal aussi c'est un état souverain ainsi de suite ainsi de suite bu ñu xoolee ci angle intérêt parce que dañuy wax naan état intérim la xam est-ce que dana yomb euh, que état yi bëgg sauvegarder seen intérêt bëgg aussi def ay concessions pour euh, def link seen biir. xam nga mbirub état moom mënul mënul yomb surtout boo boo boo nekkee état yoo xamante ne seen doole demeewul noonu. Mhm. seen seen seen waxtaan mënul yomb waaye Sénégal ak dëkk yi la par rapport ak dëkk yi ñu wër am na tradition am na culture boo xamante ne mun na waxtaan ak ñëpp. Mhm. mun na waxtaan ak Mauritanie mun na waxtaan ak Gambie mun na waxtaan ak Mali. Mhm. donc loolu ngay utiliser pour. avancer bien évidemment seen intérêt bu pare nangul ñeneen tamit seen intérêt ak seen point de vue. parce que négociation tamit loolu la. mais gëm naa ne loolu. lu lu mën a nekk la parce que yàgg nañu am ay accord de pêche ay accord diplomatique ay accord commerciaux yoo xam ne ku si nekk xëy na di si mën a gis sa bopp. Mm-hmm. donc gëm naa ne loolu bu ñu si waxtaanee tuuti rek dinañ dinañ ci dinañ ci mën a dinañ ci mën a dinañ ci mën a sori. ma daanelee fi rek mooy fii fii li li li li am monsieur l'ambassadeur son excellence wax sànq. Mm-hmm. dire que dëkk xam te dañoo décision dañoo bëgg a génn CEDEAO muy Niger Burkina ak Mali. Mm-hmm. delloo si leen biir CEDEAO Sénégal am na si pànn rëy te sànq mu ngi wax waxu monnaie bi Sénégal mën na utiliser dynamique monnaie CFA bi pour wax dëkk yooyu ne man comprendre naa li ngeen wax. Mhm. par exemple ci ci aspect monétaire bi. donc CDAO e dañ ko war a dañ ko war a xoolaat en matière de bonne gouvernance en matière si lépp ak moom UEMOA notamment sur la dimension monétaire pour mhm. wax leen ne. bu bu ñuy ba lañ ñëwee ba ñu defaraat CEDEAO wala ba defar UEMOA e ba am suñu monnaie bopp. Hmm. loolu mun na tax ba dëkk yi génnoon am sañ-sañu peut-être xalaat pour ñëwaat. Hmm. donc Sénégal am na rôle bu mag bu mun na jouer par rapport ak loolu léegi li des nag waxtaan la ba juboo ak hmm. du Mauritanie kese wala Gambie dëkk yooyu yëpp waxtaan ak ñoom ba ku si nekk tamit gis si sa bopp. mais ce qui est moom mooy ñu ñëpp on a beaucoup de problématiques en commun. on a beaucoup de dangers en commun donc nous devons war a mën trouver une solution Beaucoup de ne mën see gis merci beaucoup docteur euh, Lamine Sarr enseignant chercheur à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane dit spécialiste en relations internationales merci également à Mamadou Fall diplomate de carrière à la retraite ancien ambassadeur et ancien secrétaire d'état du ministère des affaires étrangères Je yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di bu bëgg gërëm bu baax mu euh, journal bi ci kàddu gi Barthélémy Ngom la Diop ci machine bi réalisation El la Ndiogou Diène chef d'édition édition Mbaye ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen asalaamaaleykum wa rahmatullah bay leen di ànd ak suñuy programme